bokk taalib yi fi taw yëpp te dara yëkkatiwu leen lu may istajiibu lillaahi wa lirrasuuli izaa da'aakum limaa yuhyiikum mooy ñëw ngir wu si wàllu seen tur kon sëriñ bi bi nee na mu ngi sant di gën bu baax ci sa yitte ndax mooy bu ñu ko tuddee rek tuddee daayira Touba ca kanam Nour Baye ñëpp ñu ngi tuddee Serigne Abdou Lahad Serigne Abdou di rafetlu yi am solo yi fi wax yëpp te lu xam ne ku bëgg di am ci Serigne bi dafay ko di nuyu mboolem ñu topp seen ginnaaw bu ñu ci tuddee Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Dame Atta moom ñi nga xam ne moom lañ dénk te moom itam mu jàmbaar ci taxawaayam bu di nuyu Abdoul Fattah Gueye bi nga xam ne moo jiite daayira bi ak mboolem ñi ci ne ñëpp ku ne Serigne Abdoul Ahad ak Jibi ak Serigne Moussa ak ñëpp doon tànn ñu ci ci ginnaaw yëpp di si dugg Serigne bi tudd ñëpp ndax mooy jëw ñi kon Serigne bi war ngaa sant yàlla bu baax ndax Serigne Touba dafa liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom fay ko lépp lépp lu mu yéene woon bokk ci dëkkam bu tedd bi itam suñu borom jox ko kon nag tawféex ji mooy ku yàlla borom jaar ci yow waaye Serigne Touba li bëgg kenn mënu ko te am. kon nag ku am tawféex yi mu jaar ci yow war nga sant yàlla bu baax te it ni ko sëriñ am sa waxee kilifa yi jëkk yëpp waxe ko ne loolu mooy di ci am suñu si àll yi wax na ko moom mii ne ci seen kanam. yitteewam pastéefam ak taxawaayam tax na ku ko xam ku ne danga xam ne amul dara looy xool ci lu teg ndax moom ba mu jugee ba léegi yitteem jëpp génn Sëriñ Tuubaa tàmbalee ci Sëriñ Tuubaa yem ci sëriñ leer lu sëriñ bi dugg ci mbirum adduna dugg ci mbirum politique dara itteel ko mooy Sëriñ Tuubaa foofu fekk mooy ci alxuraan yi yi ak topp tootaan yi Sëriñ Tuubaa jëwriñ bi mel noonu nag ko yàlla def tawfeex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax ndax moom de wóor na ma ne waxuma ko da seere ko ndax ñu demee ndax moom ko seere waaye dama koy seere ci doontaale bi Sëriñ Tuubaa ko topp ci ginnaaw ci Sëriñ Tuubaa képp la la jëmee. du la jëmale du la jëmale si ñànd yi te Sëriñ Tuubaa waxoon na ne dee leen yow fital te jaar ca ngir ndax kuy fital ku nekk fu fii nii guddi wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul fatahkum an sabilihi kon moom nii ñu ngi koy ñaanal bu baax rek li ñu xam ci moom ci yitte nag taxawal ko si yàlla na ko Serigne Touba ak ñoom ñëpp moom ñoom te mboolem ñu bokkal Serigne Touba ak rek ñëpp ko koy yéene ndax bu ngeen déggee Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkee Serigne Touba laata muy doon Serigne Touba boobu ak Cheikh Sidi Moussa moo fi nekk dégg ngeen kaddu yéen yëkkati woon wax leen loolu ñu ngi koy tey ñëpp mu wax na ma ne sëriñ Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ko bu ma la séeroon nga tàbbi ci kàmb. maa ngi jox ah, loolu seere mënu Atta dégg ngeen jëf ñu ji sëriñ Cheikh mu sëriñ li mu neen may musuma gis mu def ko mu yëkkati kàddu soññu tànn bi wax ci xalaat loolu te mboolem jëfoo suñu tubaab yëpp nag. muy sëriñ si am suñu soxla sëriñ Abou sëriñ Abou mi kilifaam bañ na ko boobu ma sant ci réew mooy soññi tay bi ci liggéey ñëpp kon amul ko des ndax boo limee da ngay juum waaye njabootu Sëriñ Tuubaa gépp te njabootu Sëriñ Tuubaa gi bu ñu ko waxee mooy koo xam ne bokk ci sëriñ bi wala nga yaakaar Sëriñ dafa wuy si rek di Sëriñ Tuubaa dugul ci yoon te yoon wi tàmbaloon ko di doxe dafa ñëw ngir jëmmal ndax Serigne Touba bam nekké ci njëriñ bam woté ci ñaar ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett la boo waxoon wax bi am solo jëm wax day gudd ndax jotta bi nit ñi dañoo sonu waye lam ci waxon moy lii lepp lu ngeen sombati ci lepp lo xam ne lu ngeen soxla na rawat na bi jëm ci neegu yalla wala lu dem na ngeen ci góorgóorlu ci seen kéem kattan. Hmm. def ci àll ñaan man ak li ngeen moom ci seen kattan ñam ngeen dem la xasaay wuti ko ci anam bu seen te ngeen xaar fa seen jaxam bu baax a wuti gisoo. te rikk waaye maa ngi leen waxtali ko lépp ndimbal loo xam ne bu daan fajale seen aju itam daa leen xañ seen ngor xañ seen xañ leen seen jiw daa koy firi lu gudd la moo ko waxee état bi waaye kon lii ngeen la sëriñ bi waxoon ne ku la mën a sañal la yéen giseenu Sëriñ Tuubaa njàngale moom da ngeen jur rek dégg na ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 bi ngeen sosé tey waxoon naa leen nee na seen daayira bi ñëpp ci am yaakaar li tax ñu am ci yaakaar nag moo yéen ñi ko jiite dañ xam baax kenn xaw leen ci loolu liggéey Sëriñ Tuubaa kenn xaw leen ci lu dëgg li yàq ab daayira rek ñaar rek la moo laa ne ko mooy xëccoo dara ji ak ñett ak tàbb ci mbiru góor gi ndax mbiru Sëriñ Tuubaa dafa boobu ba léegi ni yàlla dimbali li fi jaar bari na lool waaye kenn mosuñu tamit tàmbali ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa loolu nag mooy seen gànnaay moo moo leen ji itam nag moo tax xol tamit yëpp noonu te Sëriñ Saliou Mbacké daal wax na fa xolu taalibe yi jëm fa la xolu Sëñ Tuubaa yi. ndax nattu naa ko ba yi dëgg yëpp koo ci tudd cofee rek yëg-yëg ba mu ci am doo ko wàññi. kon nag na ngeen ak yaqin ci ne seen liggéey bi Sëñ Tuubaa noonu kon nag yàlla ba li bëgg a di Sëñ Tuubaa ci dëkk bi. lépp mooy jëf ko ba koy seen yoon. ba tey rek Cheikh Issa Diène dafa ne aw na. murid yi dañoo mel ne wagoo saxaar. bu bopp ba doxé rek ci ginnaaw yi dox. dëgg la de kon nag yàlla dimbali ngeen am jib du dox. serigne abdou Abdoulaye Mbacké da wax ne am ci ñoo xamne ne dañuy dox doxal ngeen de am ñu suñu dox doxee bu bukki damaa seet lañ ci mëna jël bopp rek ma ko. mu ne gaynde rek bu topé ci ginnaaw bu bu yàggee am xëy na njeex kon la ku jub dëgmal Sëriñ Tuubaa war ngaa fexe ba top ci ginnaaw ko xamne day wax. dëgg la yéne nag yàlla defal na doo fi kon ngeen xam ne yor bi mosuñu dugg ci lii ndax jumaa njariñ loolu ko liggéey seen taalibe seen tubaab ñoo ko santaane raay bii ak Cheikh Mahamadou Moustapha mi njëkk wutu seen tubaab ba mu koy woote ñëpp jàpp nañu lu mënti nekk la waaye yitteem ak procès bu ak doomam moo tax moo tax xaw ko bañ mën a tàmbali jumaa ak Cheikh Mahamadou Farid bi muy toj carrière ba ngir àggale jumaay Sëriñ Tuubaa bi booba jamono yu jafe la woon ndax dafa fekk crise bi door a jeex mhm. waaye doogu taalibe bi Sëriñ Tuubaa topp ci ginnaawam dama xam ne Sëriñ Tuubaa lépp dara mën ko te am moo tax mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp mu indi ko ci nekkam ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmmiñam ne dinaa woote milliard wallaahi ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon lu mënti nekk na mais sëriñ bi dafa xaw mu wala dafa xamul fi jamono toll waaye la nga waxoon ci waxam waxtaan wu jiw rek mbay ma nangu xol yi te xol yi nangu nañ sëriñ Tuubaa te loolu ko gàttal ginnaaw mo Cheikh Abdou Khadre Mbacké moom yàggu fi sëriñ Saliou Mbacké moom itam yàlla def na liggéey bii ngeen ñëw ngir fas yéene ko def ci dëkk bi muy ci wàllum assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alali boppam wóotewu ko woon sax moo tax ñu bari xamul ko mm-hmm. def assainissement ci ci biir dëkk bi loolu kon mooy li ci njëkk am ginnaaw yi ci toppaat door ci am waaye Serigne Saliou moo njëkk a génne ci alal def ci lu mat six cent millions ci jamono loolu yàgg na ginnaaw bi itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba Kanko Arna bi ak kër doomu Sëriñ Tuubaa yokk ba ak Cheikh Sidi Moustapha Mbacké ñëw bi mu ñëwee itam 2012 yàlla def mbënd mu métti am ci dëkk bi mu wooloon ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg tàmbali. assainissement bu ci dëkk bi daa gis saa ne dëkk bi ndox mi bari na lool mbedd yi kenn mënu fa jaar nekkoon nag damaa fas yéene yëkkati un milliard def ko ci assainissement bi tàmbale ba yàlla defee mu xalaat ko yëkkati ko war ko ci def bi ko ci jiite réew mi yëgee président Macky Sall ci la jël fukki milliard tàmbale ko bi njëkkoon bi ci liggéey kon loolu mooy. liggéey yi fi fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee ngir xam ne liggéeyee Serigne Touba dafa Serigne bi taalibe Serigne Touba yi ñoo ci woon jiitu ñëpp ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne Touba kon loolu képp ko am yitte wala nga am posture wala nga am taxawaay war na leen cee jàppale bu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam dégg naa ci wax ni ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax. ni ko suñu joom sëriñ Abdoulahi Mbacké waxee léegi sëriñ Touba ki joxe ak dërëm ak ki joxe mi daal ci pësee fa la ñoo yem ci moom sëriñ Saliou Mbacké daal wax ne addiye moo ko doom ñooy xeebu ko du ci dara pësee fa ko joxe ca laaj kon ña tàmbuloon di joxe ña téeméer ba liggéey ak sëriñ cant gi ci ñoom loo tàmbulee والله يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa ñoom bu ñu ñoom mujjee ñëw te jëf-jëf ju wax ne diw diw fa ne daane kana kana fa ne nga xam nga ni kër yu mag yu baaxoo rek buñ gisul borom dara ji rek ne ko moom daa mel ne ñax ni mu solo mu ne kana kana ñu lim ay tur sëñ bi nee na ñoo ñeenti woyofal de ñoo ma gën a itteel borom ñaar dërëm juróom yooyu ñeenti xeet bi ñoo ma itteel ndax parce que kese la njëkkati kon loolu itam mat nañ bàyyi xel bu xam ne ña ña am kàttu mën a jëf ëpp nu ñi néew alal te mën a kon ñëpp la ñu war a sant dañ sant ñi joxe ñaar ko joxe ñaar téeméer te seen poursuivre ak seen doole tollu fa waaye ña joxe lu bari itam te kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm te xam ne ko jëfale seere si Serigne Touba ko kenn xamutoon que Serigne Touba xam koy doy na si seere boo xool nag Serigne Massamba ñu ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ko. na xam ne ak daam saan mooy daam saan mooy mu ne ko kon dem mbàkki ñu fas yéene doone lantinoor mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko dana la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw ne la si diw gaay yi kon liggéey Sëriñ Tuubaa nañ xam ne mooy suñu moo war doon suñu yitte ndax moom ji te xam ne kon daayira bii ni waa kër Sëriñ Tuubaa yi ak bokk yi rafet nañ ko bu baax ndax Cheikh daa wax ne ku ñu jox addiya te doo joxe addiya te yaa ngi mel ne ku wut sa waxandew gaal bu mag ku fóot ay yéreem ba mu njëkk mu denc leen am denc la nga denc ba gaal fees boo yaakaaree ne am nga yére bu su waajtaay bi utali ko agsi laaj yére nga yëkkati ba ñëpp jox ba yëpp jeex bu fekkoon nga denc sa yére yooyu waaj si biir gaal bi keroog bi soo rek am nga ci nee na fekk kilifa bu ñu jox addiya te du jox addiya kon yéen da leen dimbale sëriñ am satum daru mu at moom maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taalibe bu ko koo xam ne ab taalibe kilifa gi jëles yëkkati ñetti nag jox ko dem siyaare génn kooku ne suñu am sama de damaa amul jaaxle maa ngi damaa xamul taalib yi dañoo amatul ko si wala dañuy gis daal mu ko tax mu ne ko kii de nee na mënta yaakaar àdduna ak àllaaxira te addiyaam ci man yoosuwul ñaar téeméer te daayira bi mu andi de wóor na ma ne ñàkk na ci lu ëpp ñaari junni ndax nag joxe lu si am sa na ko déedéet tey la taalib yi ëpp si li ñuy joxe Sëñ Tuubaa tax ñu ko joxe képp koo xam ne ñu nga ko jox rek ngir sëñ Tuubaa nga di ko jàllale ci moom ñu ñu ko jaar ci yow sëñ bi képp koo xam ne ñu nga ko jox rek te jàllale woo ko ñu jéggi def yóbbu ko directement ci kon seen liggéey bi loolu toog kon la seen xel tam baax a baax te ngeen góorgóorlu ci baax a baax nag te xam ne jëm naa ne sëñ Tuubaa ñàkk na ko ndax li tax mu ñàkk ko li yàqoon yenn daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla na ci gën a suñ tubaab dimbale leen yaatal lu ci liggéey suñ tubaab yi ci dëkk bii nga xam ne suñu tubaab dëkk bi mu mas a nekk te jéggi di ngeen Cheikh bi la mu wax mooy diggam ak yàlla diggam ak rasulullah diggam ak mu dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga ngir liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana ci def loo ko ndax waaye lu ko waay jëfal ko gis jeexal ko rek ci la Cheikh ko waxee woon sax dara ma ba ko sëriñ bi santee kërum Touba bi mu nekkoon lu mat kilomètre ñun ñëpp jaaxle si ba am ñu ñëw di ko wax ne ko xanaa nga xamul sàng ni mu jëfee fii ak fi àll toll. sëñ euh, Cheikh Ibrahima Fall ne leen néew ma xaw ma sàng waaye yéen itam xaw leen Sëñ Tuubaa ndax neewal nañ ko jaroon na nga dem ci sëriñ bi mu soppi leen liggéey ndax boo dajaloon xaalis bi guerre bi dafa am ci réew mi bato yi ñëwatul kon dara amatul. moo ne ko néew ma xaw ma waaye yéen itam xaw leen Sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa du santaane mu ko dul am te loo sant mu ko dul def. la ilaha illallah Serigne Saliou Mbacké dafa naa lu bari di wax ne boo ko Cheikh Ibrahima liggéey liggéey na ko mu àgg liggéey bépp lu ci na ay tontu des muy seng yaag tontu yaag lépp ay tontu kon mooy loolu mooy liggéey ak sëñ Tuubaa. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne sëñ Tuubaa liggéey ko yomb na. ndax day féetewoo coono bu bàyyi asam kon nag sant leen bu baax te ñaan li ngeen yéen lépp daal yàlla na leen di Sëriñ Tuubaa sëriñ bi leen di sant leen gërëm di leen wax ne lam leen waxoon rek na ngeen xam ne yitte mooy di am solo te yàlla defal leen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm lépp asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa